information. si clients ñooy ñëw bien baax. Hmm. man maam Diarra Diop laa tudd. make dama xool ni li mi make up dafa rafet moo tax ma ñëwoon fii doon make up dafa rafet dafa mignon vraiment korité bi niñ ko waajee ren euh, comme dab nañ comme niñ ko daan waajee ren euh, comme jën nañ suñuy matériel préparé suñuy euh, bagage waaw préparé make-up yi ongles yi yi tatouage yi yëpp pour le moment actuellement mi ngi daw nii waaw boo ngeen xoolee gis ngeen place bi nu mu demee client yaa ngi toog ñu ngi dóor waaw kon nag événement bi pour le moment moom waaw comme ni nga ko ni ko gars di waxee rek mi ngi dox mi ngi dox daal waaw client yaa ngi ñëw euh, ñu ngi pose si ñu ngi def si ongle ñi ngi def si cils ñi ngi def si make up. ongle yi ñu ngi koy defee deux mille cinq cent cils mille cinq cent ay tatouage bi tamit la même chose cinq mille francs et tout. la salon la. pédicure manucure postille ongul lépp la ñuy def ndax métier mi yaatu na waaye boo ci nekkee koo xam ne yàgg nga ci la nga amoon dém ba tey dañuy ñëw waa ci ñooñu laa ndax fii daanaka maa sanc xef waaw. prix yi moom man koo def lu yomb rek parce que suma mbokku jigéen ñi ñëpp bëgg lu baax ndax lu baax ñëpp a koy wër moo tax ñu leen lu yomb rek tegal leen ku nekk 500 am na 1000 francs 1500. ndax lépp bëgg ku ci nekk rek li nga tolloo rek nga man cee am. indil ñu ñu saam ñu tonni saam yi. di ziar sëñ bi maa ngi lay ziar bu wér. waaw bon instant bi moom ñi ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw fii moom mooy place bi nga xamante ni macha allah fii la ñuy defaree xale yu jigéen ñi. fii lan leen di yanjalee xale bu jigéen bu fi ñëw ñu defal la ba nga naaj fii lan lay may këbalee poser la fi ongle poser la fi si la en même temps nag ba pare nag jox la paas ni la demal. lu googu ñu sax nduggam julli nag moom. information.